mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu ah, ah asalaamaaleykum dal leen ak jàmm alhamdulilah ah, ñu ngi fi woon at bi passé ren ñu ngi fi waat ci màggalub Serigne Touba dëkk bu tedd bii di Touba ah, tey muy le treize wala boog le quatorze le quinze incha allahu rabbi le grand màggal de Touba dix-huit safar bu soobee yàlla ñu fekkee ko jàmm gaa yëpp nekk si jàmm ak salaam mais dafa am lu particulier ren daaw tamit noonu la woon mu dip nawet gi. démb si guddi rek muy guddi talaata bi taw na ndox bu bare bare bare ci fajar bi jàpp ba ci euh, suba si alhamdulilah dañ koy sante yàlla ndaxte climat bi neex na jamono ji ak ni muy faralee di tàng mais tey ñu xool yenn dal yi nan mooy jafe-jafe yi ci taw bi maanaam ndox mu bari bi ak tamit gis ngeen ko nii si tali bi nii ndox bi bari na lool lool lool waaw tali bi yëpp yàqu na koñ yu bëri ah, ñu ngi jooy wàllu assainissement ngeen dugg ci biir koñ yi waxtaan ak tamit taalibe yi ndaxte ren dina xaw a uteeg euh, euh, daaw dina uteeg daaw ndaxte jamono ji dañu nekk ci biir nawet dëgg dëgg dëgg ndox mi di wàcc bu baax a baax a baax kon damay ànd ak euh, kii di góor gi ñu dugg ci biir askan bi dugg ci biir quartier yi xool ci wàllu assainissement ak ndox mi sëñ bi ma ñëw. ma ñëw ah waaw bisimilah salaamaaleykum maa ngi lay ziar bu baax delloo ziar yàlla yàlla nga ziar ren dafa tombeek benn benn euh, benn situation boo xam ne muy nawet gi mhm. gis nañ tali bi yëpp dafa yàqu mhm. wàllub assainissement ba tey ñu ngi koy jooy ba tey waaw euh, alhamdulilah rabil alamin mhm. bi ñu yàlla mayee fekke ak tal bay taxaw ci télé bi di wax ah, ndox mi nag ndox mi yàlla la démb bi ñu noddee bi ñu salaatoo daal la commencé waaye bi ñëw moom franchement parle pour dire vrai Touba fañ daan jaar fa lañ jaar waaye nag yàlla moom kenn mënu koo fàkk ak appal moo ñëw dañ koy nangu te xam ne lépp xéwlu sëñ Touba la rek sëñ Touba jaral nañu lu ne neexal bi sax parce que tàngul merci beaucoup sëñ Touba jaral nañu lu ne nu mu rek bëgg nañ nu mu mel rek bëgg nañ bu laajee xuus ci ndox ba mu dégg suñuy dënd sax nañ ci xuus incha allah mu màggal si di jaay say dam am na ay sàkkuteef goo xamante ni ci kilifa yi nekk ci état pour ñu gën a jàppale diwaan gi. waaw waaw loolu moom dëgg la. waa état moom suñ mënee dox seen loxo ci assainissement Touba. dara gënu ko ci àdduna. ñun de loolu la ñuy sàkku assainissement daal bu fa amee ba bu tawee ndox mi bañ a taa nit ñi am fu ñu dem. nit ñi mën a dox fu ñu war a dox yëpp ñu dox ko ci jàmm ak salaam moo ñu gënal. mais si dalluwaay yi amul jafe-jafe. non dalluwaay moom alhamdulilah rabbil alamin tawféex rek ak taysiir xewlu rek xewlu ba bàyyi fa rek sëñ Touba daal jar na lu ne toll na lu ne luñ ci def rek duñ ko rëccu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf na nga def ngi si jàmm sant ndox bi bari na de euh, démb ak ba tey ci suba si naka la dal bi ak togg yi mbaa amu leen xam naa dina xaw a wante sant yàlla rek Serigne Touba woon ka jaral moo tax ñu jóge ba Ndar ñëw ba fii ah, ndax waaw ndax bëgg Serigne Touba rek hmm. waaw ndox noonu état bi dimbale rek sëkkal nu ba mu baax waaw bu déwénee yàlla na yàlla na ndox moom yiw la mm. bu ko sunu borom bi yuree rek noonu ko jàpp ak suñu téeméeri loxo. yow na nga def. maa ngi fi ku la mbëkk. xanaa garañ baa ma daaneel rek si bâche bi ma nekk. si bâche bi nga daaneel dimbali benn maire rek di ko aidé ba ba weñ gi dal sama kaw. waaye suñ Tuubaa rek jaral nañ ko si taw bi muy taw la bi muy la ànd ak ngelaw bi. Oh. moo ma def nii de waaye sant yàlla rek sëñ Tuubaa lu fi waaye def rek muy si fajar bi si fajar bi ngelaw na ngelaw lu metti lu am doole. bi da doon bëgg daa dafa daanu. da bagaasam. ah bâche bee daanu. bâche bee daanu mu teg fa bagaasam ma jëm di nga dimbali. weñ nga ñëw dal sama kaw. Oh, waaye sant yàlla rek. yàlla na ko sëñ Touba saafara. ah amiin yaa yow kon li may laaj ci jafe-jafe taw mi moom ñam nga ci moom. ñam naa bu baax sax ñam naa si waaye waaye waa Croix Rouge ñoom ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ndax macha allah ñoom taxawoon na taxawaan bu baax sax mm-hmm. kontaan nañu wax dëgg yàlla. ñoo ngi leen di jaajëfal di kontaan waaw ceebu ndar li waaw ah, kon jeex na ñun Aziz Ndiaye sunu xarit la doon fan su Balla ah, jeex na ñëw ni dalu ndar ndari ñu yekkale ceebu jën waaw gis ngeen uh, taw bi ak loraange bi nga xam ni def na ko gis ngeen uh, suñu suñu yaay ji moom bâche bi weñ bee weñ bee dal ci bopp bi mu noon dimbali benn meer rek bu doon uh, xaw a loru ci taw bi bâche bee daanu woon Euh, kon mi ngi noonu dañuy duggaat ci biir askan mi jéem a xoolaat ndox mi yan jafe-jafe la indi ci ci biir Touba man a góor gi ah góor gi ñu ñu ñu ñu ànd ñu duggaat ci biir. gis ngeen euh, kon mi ngi noonu ñu ba tey rek ñu ngi nekk ci biir ndox mi ak ci tali bi kon yoon bii nga xamante ni moom ngeen di gis yoon bii moo dem ba ci. ba ci jumaa ji mu yoonu jumaa ji nga xamante ni taalibe yi xam nañ ko bu baax a baax taalibe yi xam nañu yoon bi bu baax a baax a baax kon ndox mi instant yi tali bi lépp dafa daal di jagadi comme Ndakaaru rek am na tali yu bëri yoo xam ne fi nekk nii yàqu na ay pax rek nga fay gis kon mi ngi noonu euh, ndox mi bari na lool lool lool ci talaata fajar bi jàpp ba si suba si kon gis ngeen maire bi nga xam ne moom moo loru ci mi kon góor gi euh, ñu dox rek parce que fii yoon bi moom yoonu taalibe yi la si la ñuy jaar di dem euh, ci Touba. ci la ñuy jaar di dem euh, ca jumaa ja di def seen i ziar muy yoon boo xamante ni yoon buy nit ñi di farataal di jaar lool lool sax ndaxte benn boulevard bu gudd la jëm ci jumaa ji gis ngeen ndox mi nii ci kaw tali bi léegi sax askan bi am na ñu bëri ñoo xam ci taalibe yi pour ñu dox euh, ay jafe-jafe la léegi nag di dineen duggaat ci biir ko ñu xool yenn dalluwaay yi nga xamante ni ndox mi xëy na xaw na leen a la taxawal kaay kaay na nga def maa ngi si jàmm na maa ngi jegul de dañuy gis ne yoon bi yoon boo xam ne si la taalibe yi di ëpp di jaar ko ak ndox mi tey jafe-jafe yi euh, mën nga cee yàb bi tuuti kàddu ak taw bi nga xam ne wàcc yan jafe ngeen ci am waaw am nañ ci ay jafe-jafe ay quelques jafe-jafe rek parce que da nga daan aw mu doo fi gis benn ndox léegi moom c'est tout un problème da ngay jaar ndox mi di la baareeg yooyu yëpp am nañ ci jafe-jafe daal bu sañal moom ma ñu ngi koy dagaan ci barke Serigne Touba waaw ah, di ñaan waa Touba ca kanam ak euh, képp koo xamante ni da ngay liggéeyal Serigne Bamba rek nga taxaw ci pour liy jóge fi waaw ñu liggéey ñu ñu jàppale ko Serigne Touba ànd ak moom ci liggéey bi waaw loolu daal gis nañ ko ci moom ndox mi xaw na noo sonal tur waaw waaw ah, non ma jaaykat nag ab taalibe nga laa dama màggal si fan nga bàyyee ko maa ngi baaw a goo xombol. xombol waaw mais yoon bi tamit ah, amul benn jafe-jafe ah, euh, yoon bi am na jafe-jafe nag. Ah. waaw autoroute bi moom xat na lool surtout boo duggee Touba. waaw dégg naa démb si talaata si guddi moom xat na mi taw waaw waaw xat na ndox mi sax si yoon bi la ñu fekk. Hmm. waaw mais lépp Sëñ Bàmba rek. waaw bu doon taw ay xel tamit dañuy ñëw. waaw incha allah. waaye daal ci dëkk bi moom des na ay jéego yu ñu war ñu ngi gis ay Touba ci kanam comme ak yeneen daayira yëpp ñu ngi ci waaye des na waaye ñu ngi ñaan daal lépp dina mat incha allah. ayca demal ziar grand jaajëf ñu ñu xoolaat euh, ñenn ñi rek ci ay euh, taalibe waaye tamit ci ci jaaykat yi ci jaaykat yi asalaamaaleykum yaay booy na nga def. waaw waaw baax si yaay booy na def. waaw maa ngi nii rek. am ngeen ay ah? am na ay jafe-jafe de wax dëgg yàlla. ndox mi bari na. Mm-hmm. ñun ñi tëdd ci mbedd yi macha allah sonn nañ démb. ngelaw li ba mu dikkee taluñu dara ñun ñëpp a buubaanu daw waaye lépp ci Serigne Touba rek. taw bi si mbedd bi la ci mbedd bi la ma fekk waaw. tawte nga de. tawte naa moom macha allah. mbaa yi tooy. non marchandise yi yàqu ñun ñu ngi woon kër sëñ ba dañuy toggal sëñ bi ba pare doog a doog a liggéey waaw noonu la ñuy def waaw. moo la ñu war a def pour euh, mu gën a ñoŋ ci jaaykat xanaa xam ne fii dëkkub Serigne Bamba ndox dëgg la xéewal la waaye war nañoo defal ay kanaam macha allah defar dëkk bi ba tubaarkàlla tali bi yëpp dafa war a feex ak mbedd yeeg yëpp koñ yi yëpp tooy war ngeen cee wax. moo tax ñu wax nii nag. dëgg neexul fii dëkkub sëñ Bamba la dafa war a neex daal. nii la nii la ñuy barkeeloo pour mbir wi ñoŋ. dëgg la dagg la dagg la gis lu ñu war a defar rek. daa di koy defar rawatina dëkkub sëriñ Bamba bii fii lépp taw féex lépp ngeen war a defar macha allah waaw. maa ngi nii rek sant Sëñ Tuubaa. naka jafe-jafe yi ak taw bi. taw tawte ba tooy xepp ngàcc ba bale ba samay faam mbax di métti ma ngàcc bay ba gadee. koo doon ma ne ak fii. fii maa taawoon nii. ba maa ko bale ba nit ñi mën a jàll. waaw waaye sant sëñ bi rek lépp xéewalu sëñ bi la. Sëriñ Fallou yan jéego lañ war a def gis nañ ni yenn mbedd yi taana tali bi tamit fii nga xam taalibe yi fa la ñuy jaar gis nga tali bi ni mu mel. sant yàlla rek. di ñaan yàlla gudd fan ak wér rek xéewal gi saawaan baawaan waaw lépp ci la xaj ca màggal gi mbokk yi jaa ngeen jëf gis ngeen ah, na nawet gi ak uh, màggalub uh, Serigne Touba gi 18 uh, safar yaa nga doon ay xéewal rek gis ngeen ñi nga xam ne am nañ ci ay jafe-jafe soxna si nga xamante ni bâche bi moo dal ci kawam ak tamit jaaykat yi nga xam ne loru nañ ci lool yàlla na lépp doon ay xéewal baawaan waaye tamit ñu gën a def ay jéego lu jëm ci wàllu assainissement ndox bi nga xamante ni rek day wàcc ci kaw tali bi ñu mu am ay évacuation jéegu baax baax doonte sax ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo waaye ren gis nañ ne ndox mi bari na lool surtout ñu ne suba la màggal gi fajar bi mu taw ndox mu baree bare bare xéewal rek lay doon ci barke borom bés bi euh, ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaye tamit ay jéego war nañ ko si gën a def lu toll si tali yeeg ak ci koñ yeeg yooyu yëpp daal euh, war nañ ci def ay jéego jaa ngeen jëf loolu la woon lañ leen doon indil màggalu Serigne Touba édition 2022 ak góor gi. jaa jëf ñu xaarandi rek euh, fii ak euh, ay euh, heure yu néew yeneen i xibaar ak yeneen i reportage incha allahu rabbi